ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di nuyuwaat ñëpp di ñaan yàlla yàlla na yàlla doolu sutura lii mooy euh, délégation monsieur le maire tabaarakallaahu euh, imam Adama Ndiaye moo ko jiite madame la maire mi ngi nii tabaarakallaahu euh, Mamadou Ndiaye ñu gën koo miin si loota góor gi Ndiol Gaye mi ngi nii fa tabaarakallaahu may xari sawaare première dame tabaarakallaahu Gabriel Bopp macha allah. ñu ngi nii def délégation bu am am am solo di leen ñaanal yàlla ni leen dal leen ak jàmm ñëw leen ak jàmm incha allah. waa di kontaan rek di sant yàlla tamit biñ ko fekke waatee wax dëgg yàlla am na ñaar at yoo xam fekke wuñ ko ndax feebar bi yàlla nag fi gën a dàq. am na ñoo kontante ndax dëkk bu toll ni Kër Moussa de organiser lu toll nii heure bu ñëwee ni programme la boo xam ne góor jigéen mag ak ndaw ñëpp a koy yàkkamti ndax diine ji nga xam mag ñi moom lañ fa bàyyi woon. ndaw yi di ko saxal ba léegi yàlla na yàlla doole jàppale. ànd ak délégation boo xam tey jii ñoo fi teewal tey maire ànd ko ak monsieur le maire Gabriel Bopp Adama Ndiaye conseiller am nañ tamit ba Ndiol conseiller du maire am nañ Mamadou Ndiaye Lota conseiller am nañ Xëri Sawaare conseiller am nañ Libaas am nañ sata Libaas tam conseiller la vraiment ñun ñëpp ak délégation bi ñu ci ginnaaw ñu ngi ñëw ñoo doon pour maire.